من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة teg ko ci yoon teg ko ci yoon di émission bu bees bu leen seen chaîne bi di Assalaamy TV indil te ko ci yoon ay bés bu nekk lay am te ko ci yoon di émission boo xam ne daañ ci waxtaanee lépp lu jëm ci actualité muy xew-xew ci réew mi nga xam ne moo di Sénégal ba ci bitim réew moo xam religion la di diine politique société éducation santé lépp loo xam ne dafa jëm ci fait divers duñ bàyyi benn fànn lépp ci seen émission te ko ci yoon lay amee ci ay bés bu nekk ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ànd ak seen site internet asalaami point net mbokk yi bu leen fàttee abonné wala ngeen di partagé suñuy video ci asalaami tv ak seen émission teg ko ci yoon seen chaîne bi di asalaami tv lépp lay teg ci yoon man zannani xayra xadimin mustafa fa innani axdimu bi دخول الجنة دار القرار والمنى